dellu Cheikh naa déglu nga Modou Modou Kama macha allah déglu euh, naa léegi comme euh, amul benn delluwaay bu dul alxuraan nooy layalee delluwaay boobu ak looy commenté ci li mu wax euh, déglu naa li mu wax li mu njëkk a wax wax dëgg yàlla wax ju rafet la te wax ju am solo la mhm. te li mu wax noonu loolu laay wax maanaam nit mënul dellu ci téereb yàlla ñu koy tuddee ba pare bi lu dul ak muslim mhm. su fekkee ne nit ki day dellu ci alquran moo tax ñu koy tuddee quraan yi dama naan leen kon xanaa kon yonent bi kon quraan yi la woon mooy comme moom li mu ko waxee léegi xam nga ñun dañuy wax ne jafe-jafe boo xam ne ñu bari am nañ ko ci suñuy wax mi man sama bopp ci bari dañ ko dégluwul dégluwul xam nga tax may ñu bari dañ ko dégluwul dañ laa déglu te dégguñ la déglu nañ ko ah, ba tey kon mën naa nekk. ndax loolu it dana am ndax dégg ndax li ñuy déglu taxut a dégg. <laughs> ndax damay wax ne. Hmm. alxuraan. kenn déglu taxut dégg boobu nag dañ ko jàpp. Ah, dana ñëw <laughs> ndax damay wax ne. Hmm. <coughs> alxuraan kenn mënu caa dellu ba noppi ñàkk jox yonent bi wàccuwaayam. Hmm. loolu munul nekk. Oh. xam nañ ndax lan hmm. yonent bi yàlla da koo tànn hmm. soloo ko yónni ko jox ko ab risaalaam hmm. muy ab téeréem mu ñëw jottali ñu ko xam nga nee na yonent bi faaw moom it dafa am rol damay wax ne nañu ràññee ñaari baat ci alxuraan muy baatu annabi ak baatu rasul annabi ak rasul annabi wa rasul damay wax ne dañuy faa ñu ràññee ñaari baat yooya yàlla si wax topp ci alquran du wax atixu nabi atixu rasul lay wax hmm. ndax rasul bi ci boppam lay ab liggéeyam lay mission wam yàlla da koo wax ci biir téere bi yàlla dafa wax ne wa ma ala rasuli illa al balaagul mubin yàlla wax na ko ne ko in alayka الا البلاغ واخنا ما على الرسول الا البلاغ يموت شي لولا سوني ديمي سي سوره النحل ايه 35 يا بيم وخينا وخال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء متجنا كذلك فعل الذين من قبلهم لن لا جيخلي ايه ابلاج fahal ala rusuli illa al balaagul mubin ndax ndaw yi dafa am lu leen war lu dul jottali bu leer yonent bi ndaw la woon kon la doon ab liggéeyam mooy jotal te yàlla dogal na moom jotal na ndax ndigal loolu la yàlla jox yaa ayyuha rasulu balligh maa unzila ilayka min rabbika loolu mu doon jotal nag ndax dafa nekk lu lënt ndax dégg naa ko ci ay waxam. Mhm. mu wax ba tudd lu lënt leeral lu lënt. wax naa dégg naa it mu wax dañuy wax comme yi nga xam ne xaw ma dafa fasu mu war ko faram-fàcce yaakaar naa dégg naa mu wax loolu. dafa am benn jafe-jafe boo am. boo xam ne damay wax ne nit kii su delloo ci téereb yàlla dana xam ne yonent bi lay ab mission am yàllaa ko wax muy jotal. Mhm. waaye la muy jotal ndax ndax dafa lënt <coughs> ndax la muy jotal it dafa fasu ba laaj ko koy faram-fàcce yàlla ab téeréem moo ko tuddee alkitaabul mubiin mu doon lu leer yemul ci loolu ab téeréem moo ko tuddee alkitaab fassala ci bi mu waxee ci sootu anaam aaya 114 أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا كون يالا مو خامل نتيري بي دفا لير يالا مو خامل نتيري بي دنكو فرام فاجي دم بوخ يننتي بي نكو سورة بخرة آية 180 سورة بخرة آية 99 وخ يننتي بي نكو ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون mu ne ko xamal ko ne ko ci deug deug wacce nañ mu jëm ci yaw ay aaya yu leer te mën a loolu ñenn duñ ko weddi lu dul yàlla tamit ci walu faram faram-fàcce gi nonu mu tuddé téere bi alkitaab mufassala non la jàngale waté na ma kana hadha alquran ci suratu yunus aya ci aya 37 muy surat 10 aaya 37 وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه متكي وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين يا لو وانني لما واتي موي اي اي لير جنا بيمو تودي اب تيرم تيري بو لير يا لو وانني تيري بيمو واتي مو جيم سي يونت بي تيري بو فرام فاتيا لا تنينا فرام فاتيك تيري بي امول ويرنتي تي ني تي موم بروم بي لا بايكو تي وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين باتاي تاميت سون ديمي سي سوره النحل ايه 89 تي بير ايه با يالا واخنا يونتي بي نكو ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يالا مو خامني تيري بي اك ليرال لا غير بيب مير كون اب تيري نك بوروم تيري با مونول واخ ني تيري بو لير لا مونول واخ ني تيري بو ني فرام فاتي لا جوخ كو اب نداوم مو جوتلي نيكو واخ نداو لام كو ورا واخ ba noppi dànkaafu ko ca lam koy waxloo digal ko lam koy digal dànkaafu ko ca lam koy digal ñu ñëw nañu ah ndaw loolu nga xam ne kat yàlla nee na la ko war mooy jotal ba laaj ñu ne ndax dafa am lu war ndaw yi lu dul jotal ñu ne ndaw loola moom dafa am leneen lu muy indi lu dul lañ ko joxoon donte moom su ma déggee ni waxee indiwul leneen waaye lii lay faram-fàcce yaakaar naa loolu nga waxee hmm. ah, indiwul leneen waaye lii lay faram-fàcce lu leer lañ ko jox lu ñu faram fàcce lañ ko jox te la ko war yàlla waxul na leeral la la ko war yàlla waxul na faram fàcce la lam ca wax mooy jotal te loolu aaya yi koy saxal wax dëgg yàlla bari na ci alquran comme ni ko yàlla waxee ba tey fi innama alayka albalaagu wa alayna alxisaabu xam nga yooyu yàlla wax na ko mu doon lu bari kon wax dëgg yàlla suñ ne kuy dellu ci téeréb yàlla diineem day manqué man loolu daf may jaaxal man ndax lu may jaaxalee mooy man maa ngi dellu ci téereb yàlla te dellu gi may dellu ci téereb yàlla nekkul ne dama xëy rek ñëw toog na man ci téereb yàlla rek lay dellu ndax jàngaluñ ma woon loolu te juddu ma woon ci loolu li ma yóbbu ci loolu mooy settantal téereb yàlla kem ni ma ko waxee léegi ci sootu saat muy سورة 38 آية 29 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ayaatihi أولو الألباب ndax même mom li wax ni comme li nga xamné ñu bari loolu lañuy wax ne manam diine ji faaw ñu dellu ci lenen lo xamné moy ñëw di ñu faram faccel wala moy ñëw di ñu leeralal li ci téré bi loolu lu ñu jàngal lu ñu jàngal la waye ndax ñun demal nañ suñu bop ci téré bi setantalal ko suñu bop ngir xool ndax yàlla li mu wax ne téere bi lu leer la ak téere bi lu ñu faram-fàcce la ndax loolu lu wér la walla lu wérul ndax damay wax ne nit ki waxtu wu waxee ne téere bi am na lu ci lënt bañ war koo leeral te yàlla wax ne yonent bi wàcce nañ mu jëm ci yow ay aaya yu leer te mu ne loolu kenn du ko wedd du dul faasix yàlla ci boppam tuddee téere bi téere bu ñu faram-fàcce ñu ne déet am na lu ca leerul ba dafa soxla ku ko leeral am na lu ca fasu ba dafa soxla ku ko faramfàcce te ñaari baat yooyu yëpp yàlla wax ko ci téeram tuddee ko alkitaabul mubin tuddee ko alkitaab mufassala kon ndax kon nit ki su gëmee ne am na leneen luy leeral li nga xam yàlla dafa dafa leer ba noppi ndax kon nit ki su gëmee ne am na leneen luy faramfàcce li yàlla wax ne moom da koo faram ba noppi ndax kon su boobaa kooku di di yàlla